góor bu ay atam takku lool doon yëngu ci njaayum sineebar di njaayum drogue lieutenant Faye di chef du poste guy mbind bu Touba moo xam la yile information ba tey buñ sukkandikoo si moom waa ji da doon jóge Kéré mbay di ñëw ndindi di ko fi jaayee ci noonu la commissaire bii daal di yebal ay élément am ngir ñu topp ko ba bés bi ñu koy teg loxo dafa jóge woon Kéré mbay di ñëw ndindi ci la ko gars yi rek daal di interpellé fekk ci moom fukki corne yàmba loolu nag moo daal di firndeel ne liñ koy tuumaal moom góorgóorgulee dëgg la si noonu la élément police yi daal di jubali këram ngir def perquisition ngir ànd ak moom xooli la nekk këram bañ fa demee nag lañ fekk foofu benn kilo yamba ak juróom-ñaari cornet ci noonu lañ ko daal di tegee loxo ngir yóbbu ko commissariat ngir def enquête bi lieutenant fay di xam le ne waa ji dealer bu mag la te it trafiquant bu mag la ndax da daan jugee Kéré Mbay di ñëw Ndindy ak Mbàkke Baar yi ngir jaay li nga xamante ni moo di yàmbaa ji malgré at yi nga xamante ni amee na ko ndax mag la lool ba tey si ay kàddoom nee na population bi ñoo ko doon dénoncé ngir dafa nar a yàq xale yi ndax dañ ko commencé woon daan ko fréquenté defeere nañ ko nag ndiki altine ji ñu génn buñ sukkandikoo si commissaire bii di lieutenant fay moo ko xamle